asalaamaaleykum sëñ bi tur bi naka la ñu ngi la fekk fii Thiaroye sur Mer. man Demba lañ may wax waaw. gis nañ yéen ñoom ngeen def délégation taxaw lan moo waral tey taxaw bi. non lii ndox mi dafa bëri machine baa ngi ne yaa ngi dégg boobu léegi mënul manqué dara gis nga xoolal ñaari oto xam nga mënuñoo mënuñu fi jëlee ndox mi gars yi war a indi fii lu tolloog vingt camions wala trente yaa ngi dégg su ko defee ndox mi dina mën a dem mais gis nga ñaari camions yi daa mun dara ñaari camions yi mënu fi mënu fi dara. nañ nañ jëliwaat oto yi ñu ñëw voilà. ndox mi depuis kañ la fi nekk. ndox mi ndox mi léegi mu am fii cinq jours wala quatre jours. léegi naka ngeen di defee seen activité aller non fii sareet yi ñooy jàllale nit ñi gens soo duggee soo duggoon si koñ bi da ngay yéemu koñ kon yëpp ndox la. léegi sareet yi ñaata la ñuy nit ñi di fay pour mun a. jàll ay ñii ay deux cent ay fanweer ba ay cent franc. bi métti na trop. métti na lool lool. ba ak seen Tuubaa. gaa nañu yokk oto yi ñaar oto yi mënul mënul fii dara ñaari oto yee ne. wax dëgg yàlla mënul fee dara nañ nañ dolli oto yi lu toll ay 30 oto ñu ni ko fii fii li lu ne si biir mbedd lu ne si biir koñ yi moobu moo ndox ndox moom moobu lu moobu si kaw tëli bi fuuf soo duggoon si koñ yi échange da ngay yéemu am na ñoo xamante ni xam nga ay ay taabal la teg xam nga pour mun a añ foofu quoi loolu fa metti lii moo dul dëgg lii tawul gouvernement uh-huh. bëgg oto yi jaar ci kaw péage bi péage bi du ñëpp ñoo am njëgu péage kon bu ñu demee ba war a mën a jaarale ci oto yi ci péage bi waroon nañoo mën a ubbi gratuite 1000 francs bi ak 500 bi mais imaginel nga jël lii lii am fi nga tëj péage bi jaaraloo fa koo xamante ne yorul lu mu te ñëpp bëgg a dem gouvernement bi moo liggéeyul lii liggéeyu gouvernement la mais liggéeyuñ non du maire lii du liggéeyu maire lii gouvernement bi ngay wax. parce que maire amul amul amul defar lii. lii gouvernement moom capacité defar lii. lii liggéeyul. parce lii am na loo i doon teg même pas une heure de temps ndox mi génn. jël xaalis bi fasa fasaree ko dugal ko ci lu war a dugg amul benn njëriñ. waaw ñi nga tali bi nu mu mel nii lii moom c'est pas normal war nañ si wax nguur yi nañ si wax nañ si jàppale dëkk bi waa dëkk bi waaw mbëtë yi nii suñu mbëtë day fay bu awee suñu ndox mi li baaxul nañ si wax waay. ñu tur bi ak sant bi. man Sira Bala tudd. dëkk Tiwaawoon Jaksaaw. quartier Salif Mbodj. nekk responsable des femmes. situation bi toll na gis nañ la nga li ma ko wax rek mooy lu nu metti da xool depuis vendredi kenn tëddul salal xam nga ne lii ku dëkk fii doo nelaw. da ngay xalaat sa doom xalaat feebar bi nekk Covid 19 bi kenn ku ne da ngay xalaat génn lii ñëw fekk si ñu xam nga ne metti na ñun lu ñuy dëdd ñu dund ñun département de Pikine dara ko ñu koo metti lan ngeen di demander actuellement. assainissement la ñuy demander première dame ñu ngi koy ñaan ngir yàlla ak yonante bi. na wàcc sur le terrain gis jigéen ñi nu wax ko suñuy doléance bu bëggee jëkkëram faluwaat jigéen ñi dinoo sonn ko ñun li ni metti am na lu jëkkëram mën a liggéenti mais moom en tant que femme yenn yi moom moo ci mën a taxaw bu ki taxaw bi dimbali jëkkëram dina am lu changé mais toog ci seen biir rek seen kilim yi rek nan wàcc suñu bëggee gagné élection locale te ñun Tivaouane Diacksao fii mosu président mosu fi ñàkk élection mais fi mu ne nii dëkk bu yëpp Tivaouane Diacksao li ko wër ak département de Pikine góor ak ñëpp a mer man li ma lay wax teel laa taxaw di wax nëbbatuuma ko làqatuuma ko ñëpp a mer. madame Faye Sall développement yi ñoom ñoo wax loolu. ñu en tant que femme développement yi 90 pour cent ñëpp dañoo mer président nag ñi ngi appelé première dame madame madame Faye Sall nee ko man la Sira Ba ñu na génn dugg ci département bi dugg ci mbënd mi wax ak jigéen ñi wax ak jeunesse bi nu jàppale ko lu jëkkëram di wut yàlla may ko ko sinon ah. waaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi ko fi mbooloo mi julli yàlla ñu yàlla teggil mbas mi si barke maam borom Touba di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér boobu ba léegi nag liggéey ñu añu ñu reeru ñu ndekki ñu ñoo ngi ci ndox mi suñu ko yaa ngi ni dafa fees dell ndox xam naa nag mënu fa yegg si waaye yoon yemul ci benn ginnaaw ñëw na nag suñu tawat yëpp dina jeex incha allah ci barke sëñ Touba. sëñ bi tur bi ak sant bi. maa ngi tudd Alpha Kane maa ngi dëkk quartier sëñ Mansour. ñu ngi la fekk fii ci Kër Massar unité 3 naka nga ñu mën a décrire situation bi am fii ci ndox mi. ah situation bi ñuy dund fii si ndox mi bari na trop parce que daaw ba noo ngi fii ñun actuellement at quartier sant yàlla sëñ Mansour ndox maa ngi fii suñu digg yi instant ña fa logé ñëpp génn nañ fi mu nekk ay bu budon la ñuy duy teg ci ay bande nit ñi di ci déplacé wu ñii si lañuy dem marché ñii si la dem ci bitig yi lépp ci lañ koy def. boobu ba léegi benn machine mënut a tàkk samedi le quinze août ba léegi nit ñaa ngi dund ci ndox mi ndox mi puusul paasul fi mu yem la yem. mais actuellement ngi ci biir kër yi. actuellement ñëpp ngi si biir kër yi ñi nga xam ne noo moom seen kër parce que amuñu fu nu dem noo ngi fi mais ñi nga xam ne ay locataire lan mën a jël seen bagage dem jël nañ seen bagage dem mais ñi nga xam ne nag seen famille lan nekk ak si kër yi noo génn kon man maa ngi sama famille noo ci biir kër gi parce que. mënunoo dem fenn parce que jamono jun tool dafa met soo jëlee sa benn doom yóbbu ko ci beneen kër jàmbur charge nga koy dolli mais da ngay préféré toog gérer ko ak ndox ni ñu mette soo xëyee nga dem gere ji liggéey jënd li nga war a jënd yëpp indil say famille nu nekk ci nekk ci bâtiment bi. naka lay demee génn boobu noonu naka ngeen di def ban. actuellement man man damaa part man su may génn damay xuus su may xuus ndox mi fii la may yem su may génn kiroot laa yore yore saak def ci sama tenue su ma liggéey su ma wàccee. la même chose damay su ma ñëwee ba ci yoon yi damay simmeeku waat solaat kilote jël samay yére daf ko ci mbuus wala ci saak xuus si ndox mi mu jam la fii nga li nga nga nga ñëw. situation bu tollee fii euh, yow mu yow mii nga xamante ne da xuus di dem am na ay mag yu dëkk ci koñ bi ñoom tey bu ñuy génn wala xale yi ñoom mënuñu xuus naka la ñuy def. non xale yi moom ce qui est ba depuis le 15 ba léegi xale génnatul ñi nga xam ne am na accès étage seen i doom dañuy nekk ci kaw. ñi nga xam ne amuñu accès état seen i nañ leen rawale seen yëre kër ga parce que munoo nekk ci terrasse ci suuf jël ndox nekk fa di dund ak ndox mi amooy toilette amooy dara état bi 2015 2012 ba léegi même El Hadj Pate sant yàlla inondation la ministre bi ñëw na fa trois fois quatre fois bu ñëwee def état des lieux su ñëwee def état des lieux. affaire bi la même chose lay doonaat Omar Gueye ñëw na fa Serigne Mbaye Thiam ñëw na fa arrêt mënoon ko mënoon ko tuddee 56 mais boo fa laajtee 56 tey jii mënoo fa am accès alaaji paate ba 56 mënoo fa am accès parce que ndox maa ngi lay yem fii ci sa ndigg léegi jigéen ñi dematuñu marché góor ñi nooy jéem a taaba daa bu ñooy xëy sama bu dee man maa ngi xëy dem jëndi mburu ñëw indil njaboot gi après man ma xëy dem liggéey. xam nga loolu dund boobu tamit metti na. asalaamaaleykum man la Babacar Dia habitant de la cité de l'association des agents Saint-Louis de Casamance. situation bi métti trop jarul ñuy wax population bi lan la ñuy dund surtout ñu amul fi ñu jëm am naa fu mu làkk sama njaboot mais ñi fi des dëkk ci biir ndox bi mais métti dafa am ñu ñu dënk réew mi jox leen suñu ay moyens jox leen doole jox leen état pour ñu dimbali askan wi ils sont incapables en commençant par le ministre daaw nii heure bi président ñoo ne fi liggéey na dina génne Karim ñëpp dégg ngeen du dëgg kus-kusi nañ ne dañu commencé canal vers le début de l'hivernage nañ commencé defuñ fi dara dara parewul mais xam nañ kay balaa ñu naan plan Orsec canal bi parewul xam ngeen ne li ñu dundoon daaw su canal bi parewul dañuy dundaat la même chose mais au moins nañ jël ay matuwaay mettre en place ay dispositifs pour lii du mais ñuy dataan ba nit ñi ndox mi dugg ci kër nit ñi les gens di souffrir ñu ñëw di def ay discours gëmuñu leen nañu génnee la population de cette situation les Sénégalais ont trop souffert trop c'est trop nañu dimbali nit ñi. Omar Gueye il est incapable il doit démissionner lim ñu fi wax yëpp dara amu fi kenn gëmu on croit pas ce qu'il dit il doit la population est très fatiguée dañu dimbal waaw loolu laa bëggoon. gis nañ ndox mi bëri na la ñaari fan donc naka ngeen naka tax yéen ñu dëkk ci gox bi. ñu mën daa taxee xam nga de près de ans. ñoo yoroon suñu ay pompe daaw on a mis ñu ci association plus de un million cinq cent millions presque deux millions di fay ay nit di am ñuy di pompe jënd ay pompe bëpp ñu loxo ñu ñëw plan Orsec taf taf ñu génne ndox bi mais lu tax ñu xaar plan Orsec les dispositions qui vont prendre d'ici une semaine pour jëlañ ci ndox bi lu tax jëlañ ko balaa nawet c'est pas responsable lii du lii lañ xaar ci état Sénégal di bàyyi ni ñi dans cette situation pendant des années plus d'une décennie dans cette situation, c'est pas normal. Ils sont incapables. Vraiment, les gens sont fatigués. merci. Moussa Malgré nekk le coordonnateur du mouvement zéro inondation nekk membre de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe. gis nañ la doxee Thiaroye ba ñëw aussi Kër Massar lan moo nekk waaw xam nga man maay coordonnateur du réseau des volontaires pour le développement de la banlieue acteurs yi nekk ci banlieue yëpp activés pour la lutte contre les inondations man maay seen seen coordonnateur kon donc képp koo xam ne ministre dafa war a dem man dama war a teg sama tànk accompagner leen xool réellement li nga xam ne mooy xew donc loolu moom a indi à Kër Massar man je suis de Diamaguène Sicap Mbao mais nag li nga xam ne moo ñu indi mooy juste pour xool ndax tamit lii c'est c'est pas la première fois am euh, am na fi fi amati fi te lañ daan wax ba léegi moom moo fi nekkaat ñu jàpp ne tey li nga xam ne état jot na ko dugal ci ay milliards ci wàllu inondation ba léegi problème bi des ñu jàpp ne war nañ ko xoolaat parce que tey wax nañu cinq cent onze milliards dugal nañ ko ci wàllu inondation te cinq cent onze milliards yooyu ba tey problème baa ngi fi si pour le programme décennal moo tax ñu ne tey war nañu toogaat def bilan à mi-parcours càmbaraat affaire yi xoolaat lan mooy le problème réellement pour que ñu xool le mal fan parce que tey bu ñu nekkee dañ milliards am taux d' exécution soixante naa ne loolu xel sax waru koo mën a nangu moo tax ñu ñaan état bi mu xoolaat créé benn cadre de concertation boo xam ne day impliqué tous les acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy activé pour la lutte contre les inondations muy ak ñëpp ñu xool naka la ñuy def pour lii mu nekk souvenir parce que on peut pas continuer à vivre cette situation il y a des familles milliers de milliers de familles qui sont perdues leur maison à cause de ce phénomène naturel qui fait mal à la population depuis tant d'années loolu problème ñu bëggoon tey municipal dégg te ñu li ñuy demandé ñun acteurs yi nañu impliquer encore une fois les acteurs parce que am nañu xalaat ci li nga xam ne moo war a régler le problème des nañ la sànq nga jéggi nit ñi gars yi nga dem wax ministre ba nga waxee ak lan la la mais li ma tontu rafetlu suma kàddu xam ne aussi un citoyen moo doon wax koo xam ne ku bëgg réewam la koo xam ne ku jàmbaare la ci réewam moo taxawoon di wax loolu moo tax tey ñun aussi. moom xam na ma parce que récemment le ministre Omar Gueye am nañ benn face à face bu ñu defoon ci benn rajo ci biir réew ma waxoon ko ci benn mbir mooy li nga xam ne mooy euh, cent cinquante cinq millions de dollars yi nga xam ne le conseil d'administration de de la banque mondiale moom moo ko approuvé pour dugal ko ci wàllu projet 2 loolu noonu dañu ko lebal d'accord mais bëgg nañ aussi xaalis boobu mu tegu ci yoon ba a tegu parce que boo di gisee def na milliards te ba le problème n'est pas totalement réglé ñu jàpp ne kon loolu war nañ ko xoolaat ba milliards yooyu nga xam ne dugalaat nañ ko ci wàllu inondation ñu xool si yoon bi war a jaar te loolu pour mu am il faut président de la république def bilan à mi-parcours évaluer euh, le programme décennal avant ñuy arriver à terme loolu mooy li nga xam ne mooy suñu taxawaay. maa ngi tudd Bassirou Ba maa ngi dëkk Kër Massar Parcelles Assainies unité 14 ci ndox mi. ñu la fekk ci biir ndox mi situation bi délicat na naka nga koy décrire. waaw métti métti métti métti bu amoon métti beneen qualification dinaa ko wax fu mu métti yam ndax man maa ngi ci biir ndox bi depuis le début depuis cinq ba léegi ñu ngi ci affaire yi ba léegi y a rien amul benn solution bu ñu amagoon pour l'instant. gis nañ ne ministre bi tey ñëw na pour def état des lieux tey lan ngeen koy wax. waaw li ñu koy wax mooy lenn mooy canalisation lañ bëgg d'urgence ou rien canalisation moo fi mën a jëlee ndox bi parce que déversoir bu bu bu Kër Massar mi ngi nii tout droit bu mbaaw bi tamit mi ngi fële Camille Bass ñun loolu lañ ko soxla loolu lañu doyee incha allah. Pape Matar la. waaw ñu ngi ñu fi dëgg la. situation bi ni ñu koy dundee dafay yàgg te ñun dañoo sonn ko koñ bi fu mu boo xoolee unité 10 13 14 15 fële temps yi ñun ñëpp a génn kenn desul tey la dimanche. depuis tam xarit ba léegi ñun xamuñu lu cere ji saf ñu nekk ci ndox mi di dang-dang amul lu ñu dajul 2009 ba ñuy dugal tuyau yi ba léegi lay xam ne tuyau yi ba léegi baaxul mun ñu sax fonctionné ndox mi mënul dem fenn fañ koy defeere dafa tooy sol fees dalek ndox su ma taalee pompe moto pompe ñoo ñëpp dama leen jox ndox te ñu ne ne machine lañ soxla ak canal ku ñu kiiree canal bi fële mu xale ñu mën a dolli ndox diñu ko dig diñu ko dig dig chaque année loolu la ñuy wax ren tey ji ne dañoo sonn dee leen nañ deux éléments yoo xam ne courant si biir ñaari dee nañ ko barki démb ak Ndiaye tam xarit une semaine kenn ki yaayam daa am ndox néegam mu koy dimbali courant bi dakar dagg na mu jàpp ko ba ñu yëg ak moom di dem fekk faatu na amuñu oto bu ko oto boo wax mu ne daa a dugg ñu génn suñu bopp préfet dañ ko joxoon heure ak mu heure tey bu ñëwaatul dañuy génnaat taxawaat ci tali te duñu amul luñ ci daw ñu nag suñu koñ lañuy defar nañu dimbal ci koñ bi ñu jënd ñu canal bi ba mu set huit tuwéy dafa ñu canal bu mag fu waay neex xaal loolu lañ soxla leneen lu bu mënta dégg rek ñu wàccaa ci kàddu ñun duñ taw duñ tay waaw maa ngi tudd Cheikh Tidiane Niang dëkk fii nii quartier Doubalès quoi waaw naka waaw li ñuy dund nii du tey dafa yàgg depuis 2005 2006 la première nawet bi am yàq koñ bi léegi li gën a yàq koñ bi li gën a yàq koñ mooy dañoo jëloon fii ay kër yoo xam ne plus de ay cent 800 euh, maisons yoo xam ne dañ leen yóbbu woon tawféex léegi yooyu ñu tojoon noonu moo def point d'eau léegi moom moo dem nag di def dex di def dex ba taxaloo léegi taxaloo boobu moo tax mu indi lii 2009 euh, nu mu tuddati euh, ministre de l' intérieur Ousmane Ngom moo defoon solution bi pour pour comme euh, maanaam genre genre kii quoi état d' urgence boo xam ne day day jéem a yóbbu ndox bi ñu nekk si jàmm mais dañoo dem 2009 ba léegi te provisoire la woon moom moo dem ba tey nag indi lii yëpp parce que provisoire la woon du woon ndox kii du woon tiwa canal tiwa la woon pour yóbbu ndox bi noonu rek pour ñu def fi canal mais 2009 ba léegi ñu ne provisoire boobu ba léegi mënuñu lu ñu bëgg lu tax ñu indi ministre ba fii. mooy dañoo bëgg ñu am canal ñu pavé ko nga xam ne suuf si du dugg si canal bi chaque nawet dootu ñu dundati lii parce que ñun 2005 ba tey suñ la waxee dëgg chaque nawet day gën a pire waaw looloo tax tey ñu ñëw fii ni ministre bi na dugg gisal boppam xam ne li fi mus a def état mus a def yëpp dara baaxu fi dañoo bëgg nag canal bu ñu pavé fii pavage fii nga xam ne day am ay point yoo xam ne bu nawet jotee avant hivernal bi dañ koy curé dindi mbalit bi fi nekk yëpp nga xam ne nawet bi day ñëw ndox bi daw loolu lañ bëgg. Ibrahima Faye laa tudd. ñu fekk euh, fii. Kër Massar unité 14 naka ngeen di dundee situation bii ñuy gis fii. métti na métti na foo ko natt weesu na ko ça fait 15 jours lu ko jege ñu ngi dund lii nga sa njaboot sa yaay ak say doom ci biir kër gi sa yaay bu xëyee du génn yaay yooyu yow yaay génn dem ndugg ji jënd mburu def lépp ñëw indi ci biir kër gi kon ne sa liggéey da ngay dem ba mu yàgg liggéey bi sax dootoo ko mën parce que soxla yi day gën a bari ci kër gi. sëñ bi boo bëggee dégg-dégg sama kër moo fay dem ndox mi fii la ma yem billaahi walaahi wa taalaay te lii dara mënu ci beneen pexe lu dul Eiffage pompe Eiffage la ñu soxla fii bu loolu weesoo ñu defal ñu ay canal une bonne fois pour toutes parce que ñun ñoo dañoo sonn depuis 2005 ba tey lii ñu ngi koy dund même souffrance canalisation lañ bëgg bu ndox mi génnee nous sommes marre je m'adresse directement à président président du Sénégal Macky Sall lii jóg ci ak nu mu gën a gaawee jóg ci parce que sonn nañ sama sama morom ak man mii ak keneen ak keneen ku waxul sonn nga te lii bu fekkee ne am nañ ci saafara nañ ci jóg nu mu gën a gaawee plus rapidement possible jaa ngeen jëf.